Euh, jërë ngeen jëf mbokki internet 313 digital gannaaw ba ngeen nuyoo amaat mbégte contentement di ak yéen ci seen actu du jour tey nag dañu koy doore ak kii di wuyoo ci Ndiaga Ndour di rakk ci waykat bi nga xam ni kon euh, kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal nekk Youssou nduur borom euh, TFM moom Ndiaga Ndour kon daal di nañu xam le ni rek dañu ko daal di kon arrêté bu ñu sukkandikoo ci ñi di waa Sénégal moom Ndiaga Ndour kon daal nañ koy arrêté rek yóbbu ko fële ca cave moom Ndiaga information bi nag kon dafa rek daal di ñëw ci dernière minute maanaam benn rebondissement rek moom moo am ci affaire bi nga xam ni kon dañu ko doon wax ci wàllu vol de fréquence te mu opposé woon ak digganteem ak kii di directeur u 2 di El Hadj moom mi di Ndiaga Ndour kon noonu rek la ñu daal di xamee li nga xam ne moom moo information bi ndax bu ñu sukkandikoo ba tey ci Senenews moom mi nga xamante ni si ni kon moom mooy frère Youssou Ndour Ndiaga Ndour kon daal di nañu koy rek teg loxo Ndiaga moom directeur technique di groupe Futurs média daal di nañu koy arrêté tey ci mardi ji moom euh, kii di Ndiaga Ndour bu ba tey ci même source moom Ndiaga Ndour dafa rek impliqué ci benn affaire boo xamante ni si ni euh, dañu jàppoon ni rek kon maanaam wàllum vol de fréquence la ba euh, instant bi moom Ndiaga Ndour kon mi ngi rek à la cave du tribunal de Dakar ci fàttali moom Ndiaga Ndour kon nekkoon nañu ko rek daal di déglu le mardi 2 juin dernier bi nga xam ni kon njëkkoon nañ ko woolu moom Ndiaga ba ci Thiam Bouba Ndour directeur des programmes de la télévision Futur Média gannaaw ci noonu kon rek lañu rek ñu leen daal di bàyyi ci fàttali le 21 juin dernier moom El Hadj Ndiaye patron de la des 2STV dafa rek kon defoon ay révélation ci système boo xamante ni si ni système frauduleux ci wàllum piratage boo xamante ni si ni kon jàpp na ni rek ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di frère Youssou Ndour kon ñoom ñoo ko doon def ci ay fréquence am lim doon accusé kii di Ndiaga Ndour kon moom mooy rek rek pirater li nga xam ne moo di ay fréquence am yoo xamante ni si ni da ko rek daal di jël illégalement sur le satellite depuis ba sax sàcc googu maanaam wàllum càccugu satellite googu noonu kon da koo rek daal di kuti woon li nga moom moo di muy perte ay image yoo xamante ni si ni kon jàpp na ni rek ci ay événement yu baree bari loolu rek moom moo ko ko daan yóbbee ci ay direct yoo xam ne daan na ko def moom kii di El Hadj Ndiaye directeur 2STV ba tax na kon mbir mi fi mu ne nii kon mi ngi mel ne rek nit ñi jàppoon nañ ni dafa rek daal di fay waaye kon daal di nañ koy yëkkatiwaat gannaaw sax ba ñu xam leen ni rek kii di Ndiaga Ndour frère Youssou Ndour daal di nañ koy jàpp kon mbokki internet 313 digital dinañ leen wéy di toppal kaa bi lu ci mënti ruusandi dinañ leen ko indilaat fii ci 313 digital di leen wax ngeen wéy di continuer di abonné di bës ci kolos de notification bi ngir ngeen wéy di mën am suñu yeneen i vidéo jërë ngeen jëf